tàkk ba jib na générique bi départ na wasaare làmb tàmbaliwaat na ak jàngat làmb tey ma ànd ceeg Ouzin ñu fas yéene jàngat làmb ji def ko comme ni ñu leen ko daan defee mbokk yi ñu leen nuyu képp ku waay mën a nekk réew mi moo xam bitim réew di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen waat fi ñu leen daan nuyoo fii ci wasaare làmb di am mbégte ak kontaante mbokk di janoog yéen saa yuñ koy defee saa su ne jéem na woy naa woy bu am jom Ouzin maa ngi lay siyaar. Badji maa ngi lay fay di la delloo siyaar bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan à travers le monde ak Europe Asie ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi suivre Wassare Lamb ñoo ngi leen di nuyu di leen wax namoon nañ leen xam naa ne tamit namoon ngeen ñu tey tamit ñu ñëw woo leen defal jàngat làmb ànd ceeg Baye Djily delloo naa la kàddu gi. Ouzin tey ñu fas yéene waxee waxtaanee équipe bi nga xamante ni mooy jëf soo a nekk. Mhm. Euh, mu nekk équipe boo xamante ni bilan bi dama lay bàyyi nga wax ma billan wa bi wax ma ci yan mbër yi nga xamante ni champion bëri nañ ci ñu tëgg rek xam naa wax ci ñett mbër wala ñeent mbër parce que wax ci mbër yëpp équipe bi euh, nombre de combats yi ñu am bëri mhm. euh, wax ci mbër yëpp day xaw a di te temps bi ñu ko may naa dañuy analyser rek ak waxtaanee ñaata combat lañ bëri yu mel noonu équipe bi ñaata combat lañ Baye Djily Jëf Sogo nekk am nañ quatorze combats. Hmm. am ci onze victoires trois défaites benn match nul. chapeau de <laughs> Jëf Sogo nekk bravo. Hmm, aussi ñu nekk ay xale yoo xamante ni comme ni mu koy waxee amuñu ténor bu mag. Hmm. ñëpp ay xale lañu. waaye mm, boo ku mbagg boo gis bu ne. boo ubbee xol ba magasin nga ciy fekk bu mag sax ndax boo xoolee ñi di jëf soo ko nekk mhm. su ma lay liman daanaka amaana daanaka amaana yow di nga xam ñi may wax mhm. mais ñenn ñi nga xamante ni dañ ci ay amateurs yu bees lañ wala boog ñoo xamante ni duñ suivre wala ñoo xamante ni xamuñ leen mhm. boo tuddee dinaan kuy kooku ndax gis naa ki nga xamante ni mooy booy melax mu uh-huh. nekk xale boo xamante nii suñ ko jàppalee mu am mu dolliwaat tuuti gëm-gëm ci boppam dina mën a téye làmb am na ci keneen koo xamante ni mooy xayta xayta xayta hmm. xale boo xamante ni xale bu mën a bari la hmm. boo ko gisee da naan dafa lewet waaye bu sumee ko ba abdi sifle génn seen diggante <laughs> li ñuy wax naan looy jàng lu neena mokk hmm. ndax métier ak sàqameyam bu ci noo mokkul ak sonal boobam xale bu mën a bëri la ren def na ñaari sorti perte na benn bi gagné benn bi ak ki nga xamante ni mooy Boy Sey bari na ci ay xale yoo xamante ni dañoo bokk ci làmb ay Lagos numéro deux ah ay ay gaucher bari na ci ay xale yoo xamante ni daal ay ndaanaan lañ ci écurie bi. Hmm. muy xale yoo xamante ni teg am na fi teg seen bët ndax boo xoolee ku def quatorze combats am ci onze victoire trois défaites benn niil daanaka mën naa ne tey ñoom palmarès bu baax la ñu am. Hmm. Hmm. Mhm. ba tax nag dañ leen di jaajëfal dina wax ne nañ gën a yokk liggéey bi gars ngi leen bàyyi xel bu baax a baax baax ji noo gisee boobu palmarès. Ah, am na solo. am na solo parce que bu ngeen nekkee écurie boo xamante ni. daanaka man ñu bari bàkkee nañ ma ne eh, man maay ambassadeur mbër yu ndaw yi te dama koo nangu trop parce que mbër yu ndaw yi ñooy doon ëllëgu làmb tey boo nee écurie jëf soo ko nekk am na ñoo xamante ni daanaka mën nañ ne non boobu fan la nekk. Mm-hmm. wala xamuñu sax écurie bi wala tur bi ko déggee ñaar doo ko dégg mais teewul ñoom am nañ gëm-gëm bu toll nii saa suñu duggee ci làmb dinañ wane seen bopp euh, gis nga Ouzin dafa am loo xamante ni dafa dafa am solo. Mm-hmm. xam nga lan moo bon ñàkk bokk ci course bi. Mm-hmm. mais bokk ci course bi moom dafa am solo. pay ak des nag yàlla suñu borom dong moo ko yor bëri na écurie yu mag yi ñu fiy tudd fi mu toll nii boo leen waxee seen nombre de défaites moo seen victoire. Mm-hmm. xoolal écurie bi di jëf soog nekk. mënoo fa tudd benn champion boo xam ne mu ngi fay fayeeku cinq millions. amu fa wala kuy fayeeku deux amu fa ba pare léegi fi mu toll nii xoolal li ñu def écurie yi fayeeku ay cent millions quatre vingt millions cinq millions am defuñu ko. kon moo lay wan ne affaire bi du fi ñu ko teg ci làmb mhm. mais làmb li ci jiitu mooy dañu ci jëmbat fulla ak fayda mhm. démb way naa ko euh, di la wax doo ma ci may tuuti way way bi bu dee Dakar su boo koy jaay ba tey faw nga am fulla muy wan ni fulla sinon ma ñam da koy jeexal <laughs> waaye lii dee ko waye dee ko waye fii de xam naa ne sa baat bii bu yàggee tuuti euh, bàyyi jiili ku ko yóbbu ci ci comédie bi mu dem ah comédie bu xam nga rek ah, des fois. xam naa moo la boole Adama dina la yóbbu fee seen petit gàllé. waaw dafa yóbbu dafa yóbbu ma def ma def comédie léegi mu doon loo xamante ni jëmbat nañ ci fula Ouzin. te lépp looy def faw nga am ci fulla ak fayda mhm. am ci gëm-gëm xale yi amuñu jàppale bi ñu bëgg naam kii jof soo ba nekk amuñu jàppale bi ñu bëgg naam amuñu kenn koo xamante ne di nga bëre ba pare yëkkati euh, yenn som wala nga yëkkati dara def ci keesu équipe ba mais teewul ñu ngi dem ak seen jom ñu ngi dem ak seen njàmbaar ñu ngi dem ak seen fulla ak fayda compétition bu am bu ñu ñëwee doo xam ni kii ci équipe bi mu jugee bëri na ay champion yu fa nekk wala kii ci mhm. équipe bi mu jugee am na lu ñu manqué ñoom xale yi bu ñëwee dinañ indi fulla dinañ indi fayda dinañ indi jom ba lu leen yàlla may ñu ñu jël parce que loolu nag mooy l'essentiel hmm. li ëpp solo mooy compétition boo ñëwee ni boo simee ko ñu xam ne mbër mi kat mu ngi ci état de forme ñaareel bi mooy euh, nga gëm ni sa nga gëm sa bopp surtout gëm ni tey adversaire bi may dajeel ak lu munti xew rek ma koy daan hmm. ndam nag moom yàlla moo ko yor boo amee ndam nga àndal say mbokk zible boo amee defet delluwaat defaruwaat ñoo xam ne làmb noonu la ñaari ndamay dugg waaye ñaari ndam ñooy euh, benn ndamay génn euh, mu doon équilibre boo xamante ne ay xale yu am jom ñu fa malgré nag am nañ defet ñu am defet xëy na erreur la boo xamante ni war nañ ko mën a rectifier mhm. parce que nag euh, am na ci mbër moo xamante ni daan na benn yoon ci saison bi mhm. ñu daan ko benn yoon muy xayta muy xayta xayta bëri na benn yoon daan ñu daan ko benn yoon mais gis nga day xam ni loolu yëpp dañuy xam ne rek làmb moo demee noonu ñoom ñi nga xamante ne bëri nañ daanu mën nañ ci wanawaat seen. mais xam nga la moo ci gën hmm. gis nga écurie yi nga xamante ne ay mbër yoo fi mbër ndaw ñoo fi nekk làmb euh, ñii ciy jàppale mbër yi balaa ñu lay jàppale il faut ñu am mbër mu mag. Hmm. écurie su amee mbër mu mag bu leen mën a tudd dinañ sawar di def ndax dinañ bëgg bu toogee tele bi tudd seen tour wala jàllale leen. Hmm. mais ñii dañuy am problème. ndax dañoo nekk mbër yoo xamante ne kenn xamu leen mhm. ñoom ñooy gëm seen bopp am seen gëm-gëmu bopp ak ñi nga xamante ne dañ leen a jege mhm. mais ñu duñ gis sax autorité yu bàyyi ji li mhm. dañuy dem ak seen jom ak seen poos ak seen doole ba tax na jàppale leen day day maanaam seen combat day metti moo tax dañ ci jëmbat fulla fayda ak jom duñ ci demee benn yoon yaafuus moo tax lii ñu am ñoom duñ koo mérité ñun xale yi comme li nga koy waxee ne da nga bëgg di jàppale booy ñun ñoo ci war di jàpp ndax mbër mu ndaw mooy doon mbër mu mag ëllëg ñii dañ ci war jàpp ndax ñu am courage di entraîné ndax entraîné dafa metti gis nga fii fii quatorze combats la ñu am hmm. mais boo xoolee di nga gis cinquante mbër yu nekk ci ginnaaw yoo xamante ni bëggoon nañu bëri ren te bëriwuñ ñu naan année balance jëmaleet waat déwén est-ce que déwén dinañ bëri waat hmm. kenn xamul yàllaa xam moo tax ñuy bàyyi ji gars yi dañ ci war di jàpp xool mbër yu ndaw yi di leen di leen di di di leen encourage di leen ñaax di ci jàpp noo ci mën a jàppee ndax làmb dafa metti lamb dafa métti Ouzin lamb dafa métti mais fi mu toll nii Ouzin. Mhm. lamb ji toll na foo xamante ni fi mu toll nii euh, mën naa ne dara bu bàyyi fàll la ku nekk sa couleur. Mhm. léegi nag couleur yooyu ngay indi ci làmb mooy jom ji rek jom ji moom boo ko jëmbatee fii yaa ngi ko jëmbat ci làmb képp ku la war a jàppale dina ñëw parce que am na ci ñoo xamante ne buñ lay jàppale. le fait nga doon mbër moo xamante ne yaa ngi fay ko ay millions boo ñëwee doo ñëw sax ñoom ñoo lay woo pour jàppale. waaw mbër mu ndaw dafa métti ci lépp lépp mbër mu ndaw dafa métti mbër mu ndaw pour mu am combat coono lay daj pour mu am combat. Hmm. da dem ci kër promoteur bi. jaabante fa wala nga wan ko lu leer li tax mu lay. mu lay jox combat wala nga yëkkati dara sob jox ko mu tëggal la combat. moo lay wan mbër mu ndaw dafa métti boo amee komba donte doo am avance mais di nga àndaat ak say mbokk. ànd ak say nit dugg fu nekk dugg fu nekk bari na mbër yoo xam ne Ouzin dañuy ñëw làmb dañuy saturé ba duñ mën a sax bëri. Mhm. parce que fu ne dem nañ dugg nañ ci autorités yi ba lijjanti mystique fii dem lijjanti entraînement bi fii boo xëyee def deux séances wala trois séances par jour bëgg koo boole say mystique bu koo boole dugg ci biir kër autorité yi di leen fëgg naam pour ñu jàppale ci combat nga xam ne regroupement bi ngay def sa kër rek boo ci amul ku la dimbali dëgg-dëgg dafay metti supporters yi dem ñoo am na ci ñoo xamante ni soit seen moyen bopp li ñuy génnee jàppale la. Mhm. am na ci ñoo xamante ni yow mbër mi sax yaa leen koy defal. te léegi bari na supporter ay bu njëkk li la daan dimbali ci làmb amatul. Mhm. bu njëkk da daan am combat yow mbër mi defar say t-shirt yóbbu ko gars yi jënd. Mhm. Euh, buñ ñu jëndee t-shirt yi t-shirt bu nekk deux mille cinq cent wala deux mille francs su ko defee nga def ko ci kees bi euh, jël ci ay car. mu ngi ci dëggal liggéey mais léegi làmb dafa toll foo xamante ne mbër mi bëree sax mooy mujj di jëndal supporter am ay billet mhm. yaay mujj di leen jox t-shirt may leen ko ànd ak ñoom ñu yóbbu la làmb kon yow en retour lan nga ci gagné gañe woo ci dara mu doon loo xamante ni xëy na làmb ji fi mu toll nii dañu war a defaraat ba mbër yeeg supporter yi amaat entente bi ñu amoon nga jàppale sa mbëru gox xam ni kat lii moom gis nga football bi nawetaan mhm. da nga gis da gis benn ay see buy football ñuy dem ci IC bi di ko supporter comme ECHO boo demee ECHO mu ngi football zone on Guédiawaye mais buy ñëw da yaakaar kii fi mu toll nii àdduna ñoo màbb topp leen mbooloo mu bari la ñuy indi zone Guédiawaye def nañ fa deux ans xam nga trois ans. marqué ma yoo ko ci tuuti apprenti bi dafa romb ne fii lan moo fi xew. ma hmm. ne ko équipe bi de mooy football yi mënoo mais fii tey ku fi duggoon di sàcc da ngay sàcc bëgg parce que fii ma gis nii ay meeg pa donc fi des xale yëpp jeunes yëpp dem ma ne ko looloo fi am looloo am ay see ko bu waree football ñëpp dañuy dem mhm. ñëpp dañuy dem may nuru sama xuloowaale bi jaag xam naa sama ko nuyu woon dina borom baax nga xam ne bëri baax lañ ko bëgg a defal Parcelles Assainies ku baax la soo waaye la waaye ah des fois mooy loolu. ah man tamit dinaa ko nuyu baax a baax jàkk ne ma nag sama ensemble bi ñëw waaw sama waay la sama waay <laughs> ne ko ensemble bi ensemble bi ñëwagul mais ma yokkal la ci leen bàyyi ji mhm. gis nga xale yi des fois nga gis leen ñu bëre daanoo toog ci digg géew bi du jooy mhm. yow mi nga xamante ne comprendre nga ah, jugal dem mais xam nga lu muy xalaat mhm. bi mu waaj combat bi dem na ci jili mu may ko mu dem ci aadama mu may ko mu dem ci Mouhamed paa bi mu ñaanal ko mu ëlbatiku coono yi mu ciy daj yëkkati xaalisam dem lépp yaayam dem lépp ay xaalisam dem képp mu ñëw am chute bu ndaw bu ko daan wala boo chute du am habit bu joxe victoire mu toog jooy parce que bu xalaatee coono ba mu ci daj combat bi ñëw mat du mat sax une minute imagine na loolu coono bi ñu ci daj supporter sax laa wax coono bi ñu ci daj lamb day jeex ñu jooy asamala ak moom man gis waaj ko deux mois trois mois après yow doo comprendre. dafay dafay grave day loo xamante ni dafay métti parce que man gis naa ci mbër moo xamante ni. Mhm. ndeysaan daa bëree combat grand combat premier grand combat am arène. Mhm. mu bëree ki muy dajeel. boobu moo nekk premier grand combat moom ensuite boobu moo nekk premier grand combat. Mhm. ñu bëre saan mu daan ko. mais mbër mi daan moo mujjee côté ki daanu di ko ah, baal ma àq di jooy baal ma àq di jooy. Mhm. ñu ñëwee di ko laaj lan moo waral loolu mu ne parce que damaa xam li mu daj ci lu ne coono bu nekk daj na ko ci combat bi. donc coono boobu yëpp li ko waral mooy maa ngi moom ku ci nekk dafa war a génn moo tax ma xam ni mu ne man ñam naa defet ma xam ne soo amee defet bay ñibbi sa kër. yoon bi dafay gudd ci yow. Mhm. dafay diis doo bëgg sax yegg sa kër. maa ngi nuyu sama waa ji Kara Dollé bi ko daane ci digg yooyu muy xataraayu naan su ma demee lan lay wax waa koñ ba eh. boobu moom Kara Dollé sama waay la. sa xarit eh, eh. <laughs> euh, la ci làmb loolu Ouzin koo gis bu koy def. Mhm. borom jom la. parce que la fait que yaa yaa ngi sóoraale ñi bàyyi ginnaaw. tey nga am defet non man nan laay ñibbee su ma demee lan laay wax waa mm. ma demee nan laay xoolee samay mbokk parce que làmb na dafa nekk sport boo xamante ni faw jàmbaar la jàmbaar koy def góor la waaye ku daanu dangay rus mm-hmm. parce que tey mbër bëri na léegi la sax mu ngay gis mbër mu daanu xëy suba nga gis mbër da daan daanu toog bilaay yoo xam ne du génn kër doo bët yow da nga naan kii bu amul ñu ko assisté mun na def sax naka su dul noonu mm-hmm. mun na xaru wala mun na jaar parce que da ko day loo xamante ni gàcce la ci ñoom mais léegi nag euh, làmb moo changé bari na ba lu ci baree bari am na ñu koy sant yàlla bu baax parce que tamit dangay mujjee xam ni sport la. Mhm. daan la ak daan soo daanee génn zible dem ànd ak say mbokk ànd ak say ki dem lekk ginaar buñ la daanee nga mbaxal sombi def loolu xam ne yaa daanu bu neexee rek mooy loolu. su ngeen gisee ni ñu waxee xam ngeen ne. dañoo dal ci équipe boo xam te ay xale fa nekk. Hmm. te dañoo xam li mbër yu ndaw yi di dund. Hmm. moo tax ñuy développé ci wàllum mbër yi daanu ak ñi daan. Hmm. boo gisee lii bàyyi ji lii xamal ne xale yi dañoo daleen war a jàppale di leen ñaax ndax ñun ak ñoom dañuy déggante dañuy gisante. dañuy waxtaan dañuy xam ñoom li ñuy dund. ba tax na moo moo waral ñu koy yaatalee nii. mais xale yi ñoo leen encourage di leen jaajëfal di leen wax ne nañ gën a góorgóorlu. ndax euh, saison bi tëj na mais maanaam saison baa ngi tëjwaat nañ waajaat bu baax a te xam ne palmarès bii ñu def ni mu baaxee yéen écurie dañ leen teg bët bu baax a baax a baax a baax. Hmm. kon nañ gën a góorgóorlu bu baax bàyyi ji li kon ñu leen gën a ñaax rek ñoom it ñu gën a góor góorgóorlu xam ne ay xale lañ te làmb moom noonu la njàmbaar la fit la ak fulla ak fayda euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci jàngat làmb tey man ak euh, Ouzin ñu fas yéene ca jàngat rek wax li nga xamante ni jot nañ ko gis ci làmb jot nañ ko dégg ci làmb wala gis nañ ko ci palmarès mbër yeeg encadrement yi yëpp jàngat làmb na bu ñu ko waxee du ci fi mu toll nii dañoo toll ci di waxtaan ci phase bilan wu écurie yi mais dina ñëw ci lépp loo xamante ni dafay defar làmb parce que xam ngeen ni euh, yéen donga ñuy dooleel yéen donga ñuy fital bu ñu amee fit ba ñemee toog fii yéen la en plus ñu ngi gis conseil yi ngeen yu rafet yi ngeen ñuy jox euh, ñu ngi gis message yi ñu ngi gis lépp di leen jaajëfal bu baax a baax seen di la tàggoo ba pare di la wax nag damay def entre parenthèse hmm. ndax xam nga ne ñii seetaan làmb lépp lu luñ bëgg ci làmb dama ko wax chaque jour moom lañ leen di dama leen wax nag dañ leen di waajal lu am solo. yow am nga loo ci xam tuuti. di leen waajal loo xamante ni gëm naa ne bu ñëwee xam nga dañuy toog di waxtaanee ci mbër yi. mbër dafa am. Mm. amateur am. Mm. supporter am. Mm. damay wàcc tuuti ci supporter yi. ak amateur yi. dama bëgg ñu gis seen bopp bu baax a baax ci biir Wassare làmb ndax Wassare Lamb du ko mbër yi dong. ndax mbër supporter moo koy dooleel. te damaa bëgg nag supporter yi ak nañ wàcc. dinañ gis seen bopp ci biir Wassare Lamb bu baax a baax émission bu am solo nag émission bu am doole émission boo xamante ni waaj leen de bàyyi ji bi waaw. la mel ni ba góor jaayee mbaam lu noppi yéen dem. <laughs> Eh. tamit booy wasaare yow waane la. xaw ma lan waane trop. est-ce que xam nga ne fecc ba la taxe jéggi dex boo yeggee bul xaar ku la tàccu. <laughs> te fi mu toll nii bool bi set saa boo ko bëggee raxas di nga ko tilimal ba noppi. waaw di nga kon nag faa ñu tilimal ko ba noppi raxasaat ko ba mu set. teg ko seen seeni loxo. jërë waaj leen bu baax a baax waaj leen bu baax a baax a baax. Hmm, jërë ngeen jëf mbokk yi kon ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat lamb. jëf.